suba su ne suñu tere di mu jotee altine ba àjjuma tës di xew-xewu jamono ci biir quartier yi tës di ay faits divers yu ngeen di nettalil seen bopp yéen ñi suñuy auditeur tës ak Ahmed Aidara man a way naa laay yoo de dem nga bay ma man a way naa laay yoo de asalaamu aleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. votre le solde de votre compte. mais réew mi alaaj Chimère yow sa compte ñaata ji ne. compte. compte bancaire. Hmm. ah. <laughs> yow xam nga ne. <laughs> yow yow huit cent franc mu nekkee sa compte ñun ñun doom day kon fu ñu jëm. jaaxal de. ah. xanaa de yàlla rek tax. man. Hmm. loo fa garde nii dama amul compte bancaire maa raw si laaj loo toogaale. nii nii ma wax ak cinq cent ngi ci oto bi ak pièce deux cent cinquante. <laughs> waa ji gën a dee. cent mille. cinq cent franc. <laughs> cinq cent moo ne ci oto ak pièce deux cent cinquante. <laughs> yow de ku la xool sax xam ne. la tey mënu ma ree bul reetaan loo. yàlla xam na ko. alaaj. koor gi commencé. teel dara jàpp de. alaaj. man bu ma revue de presse ba pare rek koor gi daaneel na ma. mais est-ce que mais tamit du ko wàññi. loolu moo nag. heure bi dañ ko war a xoolaat sax. Ah. léegi alaaj ah. dama ne léegi yow yaw léegi alaaj nañ wax rek yow loo loo toogaale. man daa ah. non non non waxuma la li nga indaale ma indaale fii nii nii nii nii moom zéro franc la moom. dama yor dëgg te yàlla. moom nga indaale. yor ma dara léegi alaaj waaw. yow. li nga indaale fii ak li nga toogaale sa compte yow foo am compte sa business. man dama am compte. man dama am compte. yàlla xam ne uma compte compte ab compte que day fekk nga am man ab condamné la am. te condamné sax daa wóor. non mais réew mi. réew mi toj. yéen toog leen foofu. réew mi toj. yow mi ni mu tojee sax. ah waaye yow. yaa doon sutura rek. alaaji def xéewal xéewal ju bare bare bare alaaji yow alaaji yow mi wax compte xam nga ni fi nekk ni sa xel dal na kan compte kan man bu turu compte sax laa gëj a dégg compte kii de nee na juróomi weer a ngi nii découvert lay doxe waaw <laughs> wallaahi mi ngi jëfal la nag mu xamee Ndiaye allez vous ça wax na dëgg de non borom découvert bee ne ci ful la nag lii tamit ay waay Alaaji wax ma li nga toogaale ñaata la. waay yow. lii kii yàlla. man de koor gi. Alaaji koor gi de c'est problème bi kase sikiro daanaan nee na. waaw. Alaaji. un million. léegi boo amee chance ba am chance mën nañ laa laal cent wala cinquante. mu taal nag am na ñoo xam ne. man de waay. ña ba léegi de. parce que Sikru Daara nee nañ ñu doon maye deux millions. léegi boo amee saas ñu laal la saa wala cinquante mille. non réew mi tam kii ay saa moom. Ah, yàlla suturaal non non non dañoo toog léegi jàpp seen morso ñaam di pat. waaw ñeneen ñoo doon pat nag. léegi moom faf yàlla ñoom la dogal sax leneen tàllal loxo léegi alaaji day léegi léegi nga am ab nit koo xam ni alaaji inceptionné doo ko xalaati moom. ah la ko wax naan la ngoon dinaa jaar sa gàll nga ne ko waaw waaw waaw yow ay ataaya mu ñëw sa kër gayen wax la yenn soxlaam yoo xamante ni nii. wa. kéemtaan kéemtaan kéemtaan. kéemtaan la waar de. kéemtaan kéemtaan ah. kéemtaan kéemtaan alaaji. yomb la. ci koor gi. Ah. fi dëkk bi toll nii. benn waar. bay di dee nee bu ma reesal mu mu mu mu gi. mun na yóbbu fit dépense. Hmm. kaay gaz bi jeex na. <laughs> Eh, Njooro Ja. jigéenu Chérif Dia waaw ah, kay sama sœur yooyu euh, alaaji mm-hmm. tontu mooy dama bëgg a avancé ah, loolu la tontu ah alaaji bu ma wax lan la toogaale ah tontu ah ki wax naa la ki ma toogaale cinq cent francs téeméer nee na li ci compte bancaire la bëgg a xam man dama amul compte <laughs> compte banque la amul. lii de kenn mënu ci dara. ah. xaaral ma woo ba Cissé mu wax ma nu mu toogaale. man xaw ma man dëkk damaa xamul jamono ji ku fi am xaalis booy denc banque. moo ma jaaxal eh. soxla yi ci ah. réew mi. waaw. koor gi day ku tànn sa moroom na ko dimbali. ñu ngi gëstu dëkkandoo yi bu baax a baax. ah koo ren gi weeru la gi daa métti de. weeru nekk nga tane di ko dimbali te yàlla rek tax. Ah, am nga en temps normal sax mën nga muñ xiif mais woor ba ngoon amoo loo def sa biir. waaw yàlla rek tax de moo ci am solo. dafa métti de li tribune bind tey alaaji. métti hmm. de ramadan de crise gi. Hmm. mbas mi fi jaar. Hmm. ci atu yàlla wii. ANSD. agence nationale statistique ak démographie. Mhm. nee na diggante no euh, ci rapport bi mu génnee ci novembre deux mille vingt. Mhm. maanaam ay weer ci ginnaaw. Mhm. ah lu tolloog juróom-ñaari junni. ci ay entreprise yu tëj yu mag ak yu ndaw. sept mille yu mag xaw yu mag ak yu ndaw yëpp. waaye dañuy gis ñoo xam ne dañuy yor seen benn petite entreprise. waaw. ñu ngi ciy daw dépense. ñu ngi ciy fay seen impôt kës néew. di ci fay seen i employé yu tolloo fukk wala juróom-ñeent. mbas ma jaar fa. ma bël ma ba maar di tali. ca yàlla suñu borom. ñi dañoo jël coupe bi ñoo waa ñu nekk ci wàllu ñuy def euh, fla euh, flyers yi. waaw waaw waaw imprime imprime. yi waaw. de. Alaaji daaw ba léegi conférence amul. ñaata carte de soutien lañ doon defar ay talon ay publicité ay affichage ay nangam nangam ay casquette ay t-shirt. ah. ah ak ñi nga xam ne dañuy yëngu ci chaise yeeg baas yi. Hmm? Hmm? kenn du wetu ñoom ñoom ñoom Axma Fall ak ñoom Cikito. sama imagine yow nga toog lu tolloo fukki weer ak ñaar alaaji. waaw ñoom Cikito waaw kay. waaw weer ak ñaar ñu tere ngénte. waaw tere dëj tere takk tere conférence comme ni nga ko waxee gàmm tere gàmm ustaas yi doon def conférence nag dee nañu ah ren ñu commencé di suqali ko waat déedéet conférence amul conférence amul de waa ne ci privé bi état bi war leen a jox ay marché alaaj lu yàlla xam doy na yàlla xam doy na wallaahi wallaahi yaa di taqale rek di fay salaire. état bi alaaj cent cinquante quatre mille. Mhm. fonctionnaire mhm. bi alaaji. Mhm. lii ñuy wax ni dañuy xeex ak wàllum chômage emploi des jeunes bi. à l'état seul nguur gi rek. munul munul alaaji satisfaire si. deux pour cent munu ko. Mhm. secteur privé bi rek rek rek rek la war a taxaw ñu ñu ci cinq cent mille emplois mi mu wax mhm. secteur privé bi rek mun nañ koo yóbbul quatre cent cinquante mille yi bàyyi koog cinquante mille yi mu xool fan la leen di mhm. li ma la waaw waaw secteur privé bi laa la wax imagineel ma yow lu tolloog juróom-ñaari junni ci ay entreprise yu ndaw ak yu mag ak yi dëbbal dëbbal yoo xam ne nee leen ràpp tëj compliqué na de compliqué na de. mais imaginez tey sept millions yëpp ku nekk bu doon téeméeri ndir alaay ñoom ñoo fay liggéey. Hmm. Hmm? dina ah, xam nga loolu aussi. Hmm. loolu tamit loolu yow léegi boo amee sa secteur privé national. alaaji te doole loo leen. au contraire privé bi ñu bëree bëree bëri ñu ngi fii di dund ay jafe-jafe yoo xam ni. yenn sax état bi yenn saa yi moom moo la koy teg. Mhm. état moo la koy teg war la dooleel yow sa entreprise rek war a am lu tolloog ñeenti téeméer ci ay liggéey liggéeykat ñu ñëw teg la loo xamante ne nii alaaji bu fa inspecteurs yi jaaree ba jóge fa duñ fa bàyyi dara. too mën a téye sax cinquante liggéeykat. mais dootoo mën a téye cinquante liggéeykat te yaa ngi woon ak quatre cent employés. Mhm. yow privé bi nii quoi nekk nii si sa biir entreprise di dëbbal dëbbal. buur ñëw am possibilité defaral la ay moratoire ne la tey nga fay ma neuf cent millions yi nga ma yoreel presque un milliard te weer laa la may boo ko deful ma saisir sa kër gi alaaji ah nguuri di nguuri waa ah en tout cas di ah yàlla dolli sutura gi rek ñu geesu ñin tane jàppale leen te yàlla rek tax. Mm-hmm. te yàlla rek rek rek tax. dëkk bi dafa nekk ci crise metti na na trop trop trop. kii nee na. ñoo xam ne bu ñu seetaanee rek mu ñaaw. kii nee na saako ceeb bi jeex na moo ko gënal gaz bi jeex na te boo leen seetloo gaz bi weekend ba weekend lay jeex. waaw. <laughs> gaz gaz. gaz gaz seddu foo ñàkkee rek lay lay jeexee. lan moo tax gaz ñàkk kersa yéen amul foo ñàkkee foo xam ne yow wéccet nekkutul sa poche bi. Oh! fa lay jeexee moom ëpp gaz moom. naka jéegi dañ koy lijjanti ba noppi. di ko di fayeeku di di di di wax seen jëkkër di ko fayeeku ndànk wala sa jëloon naa xa naa gaz. wala jënd naa gaz ci sama xaalis fay ma. moo gën a yomb gas bi jeex na. man gaz bi jeex na moom moo takk bu mu sama baat seen dënnu ñoo yem ci man. bi jeex na. à fois da lay ngay non sa laaj. rek ñu day mel ni tàggee. day mel ni tàggee. non non gaz bi jeex na dañ laa tàggee. nga bu dee ceeb bi sax mën nga dem kala ngaatu jënd kilo wala ñaari kilo. waaw yow gaz bi jeex na. même nga gaz moom. ñun yàlla mosal ci gaz bi jeex na. <laughs> non kenn xamul lii lan la quoi. day na de. day na de. nii tey de. métti na de tey boo liiree tribune bi. Ah! jàppale gi rek moo ciy génne. kon na jàppale solidaire entre ñun. Hmm. solidaire entre ñun bu kenn xeeb mil francs bu kenn xeeb deux mille. lu waaye am rek. na xool ko gën a jege te mu wóor ko ni kii daal mi ngi dem ak sutura yàlla si. Hmm. mu nekk ko jàpp. ci sutura ñu jàppale te yàlla rek tax fa metti de fa metti de te am na ñoo xam ne am nañu ngor goo xam ne dog naan ndox xëy wooraat enchaîné moo leen gënal taxaw ni nit démb doguma yàlla doolu ma fa ndewoon nag de moom ci ndogu nag moom. boo xëyee. Ah, doo. di wut lekk. laa <laughs> yukallifu llaahu nafsan illaa wus'ahaa. <laughs> ah déet de. parce que la man dama ñu ko man yaa ngi fàtte boobu joxe <laughs> ndogo boobu ñetti fan. waaye loolu Seydina Alioune la loolu ñun mënuñu ko. ñun egguñu foofu. Eh, eh, te boobu alaaji du woon weeru koor de. añ reer ndékki boobu doon weeru boo tiimee yow ne ñun du ñu yonent du ñu ñoom alaaj Alioune daa bëggoon ay doomam Assane ak Ousseynou ñoo ñu feebar <laughs> mu yàlla sama doom yi feebar ba nekk ci diggante ma jaaxle tiit ci ñoom bu ñu wéree de dinaa wax ñetti fan euh, njukkalale ko sante la ko mhm. ah xale yi wér mu daal di mu daal di sóobu ci engagement loolu moom moo xam de na mu toll ci yàlla boo yàlla wal ci alxuraan ñoom ñoo xam de ñun ay nit la ñu <laughs> ay ordinaire. ah waaw waaw sidna nga xamante ni bii kooku nga xam ni Jibril daa ñëw ci kanam taxaw ni ko xooluma fu Jibril nekk diggante asamaan ak suuf mu xool xool xool ni ko fii yëpp gisuñu fi Jibril est que yow miy taxaw di yaay moom. kooku la mu xamoon nag kooku nga xam ne bi nga ne bu doo may néegu xam-xam Alioune mooy buntu ba laaj ñi mënuñu loolu de. <coughs> dañu jéem wax naa la ko benn jour kat ne la yonent bi dëkkul woon si te Aliou naa gannaan ma ay lii ak lii waaye mooy sama <coughs> waaye yéen kay yéen kay yéen kay leen ci rek. waaye gis nga kii moom tamit bu ma kii waaye mu naan ma ay tibbal safar ndogu lan la ci diine wax. yow te looy ah. looy tibbalaati ndogu koo xamante ni dara dogul seen diggante. ndax réew mi man. Ah, war a waxtaan tam dafa bari de. Ah. Eh, tibbal ko. grand Gambien maa ngi siyaar nuyu waa Dóor Awa. saa kii loolu lay laaj alaaj. kii lay laaj nu mu toll kii alaaj. nu mu toll kii. nu mu toll kii kii ab lan la moom. ah kii daal en tout cas na ma daal. alaaji firil ko. tibbal tibbal saw far. fi toll nii nag daf daf la posé question nag. tibbal saw far non question de. ah la laaj de. alaaji ah, fii ah ba mi alaaji ko tontu ko ci diine ci koor ko ci diine. yàq nga ko waaw. daal xam naa ni daal. tontu ko ci diine. nit da xajul ci moom. li nekkoon sama diggante bëggee rek. bëgg en léegi. dëgg la mm-hmm. nit dara xajul ci moom. dara dara moo doy waar. machine la de. mu ci dara nit kii daal. mu xiij xiij ji mais alaaji. waaw. pourtant nag question bu question la posé de. question bi alaaji jarul sax jarul nga ciy xóotal de. non bi la ñu rek boo ko nee daganul doo ko fenn de. non defal ndànk. non boo ko nee daganul doo noo fenn non non defal ndànk waxuñ ne daganul de. de waxuñ ne daganul de mais dadul farata dadul farata dadul sunna. ah kay nan la nekkee farata ak sunna saw far. bu ne woon tibbal sam xarit rek yem tax. xam nga far kay. xam nga far. waaw sax moom ndax dagan na ba pare. ah kay. non ça ça dépend ah. ci. ça ça dépend ci ah. ko seqee. <laughs> baax na non alaaj dama ne di defal ndànk. da ngay ànd ma ma tawoon dañ leen jox ah, àpp. lii ngeen war a ànd dama ne. ak nan ngeen di àndee bi dafa am waaw dafa am ay conditions. waaw kay bu dee safar yu bu dikkee. am na am na condition alaaj dugal ci biir. wàccee rido tëj buntu tëj palanteer. ah bu boobaa nag moom day xaw a xel day xaw a te te tey. man daal man daal li ma li lima li li ma dégg. dama ne. tibbal saw far bind ko. ah. man au ma sañ sañu fekk ko alaaji yi doxaan ma koy doxaan. xam nga kon l'islam sax déjà reconnaître na doxaan. ñu mu ma fekk fa alaaji yi doxaane man ma fay doxaan. mais am na condition alaaji. waaw maanaam condition yëpp. yaa koy interprété. ah bon. ah gars yi dañuy gis ñu texte yi. Hmm. Eh, dañuy interpréter ah, diine ji nañ ko yombal. loolu la ñu wax de nee nañ ci diine daal nanguwuñu. xam nga xam nga. ndoxaan gi au delà de six mois. yàlla ji xam nga yow manto xam nga diisal gi ñu ko diisal. moo tax sax am ñuy dañ kumpa pour découvrir la ci ginnaaw. ay koor gii nii ñu ne la doo def nii ak doo def nee doo def nee doo def nee mel ni yow la nga nekkoon laataa koor gii ñëw baaxul woon. Hmm. sëñ Babacar Si daan wax naan ku ñu ni nga ne nga nga soppi na nga tooge na nga tooge woon baaxul. na nga nekk woon laataa koor gi ñëw. continuer ca noona. daawoo tardé waxtu julli loo am ndànk séddoo ak ak ñi nga tane waaye alaaji laaj waay waay boo ci yokkaatee na ñàkk lekk ñàkk naan ba ngoon jot keneen ku li ci bëgg indi yeneen yeneen yeneen yeneen condition yoo gisul ci téere fenn lànkal. non non asudaabu asudaabu defal ndànk. <laughs> ay ay ay ay ay faro yi bu dee amul ndox nga tibbal ko tiyaaba la waxuma loolu man waxuma wa de déggoo leen ba léegi ma ne alaaji dafa araam de déggoo ba léegi ma ne la ma ne la dafa araam. non waxoo dafa araam. waaw donc c'est question. waaw tibbal saw far. waaw ndogu ci koor gi yóbbu ko. waaw ah waaye loolu daal alaaji du farata te du sunna. yóbbu. du farata te du sunna la. non moom yóbbu la wax wala. ah ko tibbal ndogu doo ko yóbbu. léegi invité nag invité mu ñëw ci kër gi nag. nga invité ku góor mu ñëw ci kër gi. ndaw si. loolu dara nekku ci. dara nekku ci. wax na. non yéen yéen yéen yéen na dëgg-dëgg nag non attends attends attends yéen yow charte diine charte charte bi la wax ni yow amoo sañ-sañu ak ki ngay bëgganteel ngeen toog ci benn néeg yéen ñaar. moo leen aaye ngeen toog yéen ñaar ci benn bureau bu tëju. dëgg la. déggoo ma de. boo demee Arabie Saoudite même bu ñu bu ñu commencé di valider jigéen ñi liggéey mais pas tëju ci bureau dafa am ay place ay supermarché fan ay aéroport ak nangam ki la ni doo tëjoo gel bi ngay doxaan ci biir néeg bi même charte boobu moo ni amoo sañ sañu tëjoo ndaw si ci bureau bi. ñeen ñaar kese. te fii est-ce que néew na bureau booy dem te doo fekk góor jigéen nekk. man lay ñu yow yaa ngi nekk nekk say bàyyi de ah rajo doo nga dé ma ne rajo doo nga leen ñuy dégg xamuñu ba xam ñoo den dem déet xamuñu ñaata mètre dox suñu diggante kenn na xamul léegi dara léegi alaaji te ñu xam ne suñu doom nga léegi na ñu nekk ñu nekk ay ay ñeneen nag waaw léegi alaaji léegi ñu nelaw ci jàkkee ak jumaa yi <laughs> waaye da ko soppi nag te mu du place nelaw ak jumaa <laughs> ah wax dëgg yàlla na wax dëgg yàlla place nelaw kaay de. falo gars yi dàqe koor de. donte nelaw donte nelaw nag du tàggoo. mani. waaw mani. waaw boo nelawee boo nelawee moom xam nga ni jàpp na moom toj na boo nelawee moom jàpp na moom toj na moom. bu diisee. waaye alaaji lan mooy nelaw bu diisee booy. ok déet nelaw moom alaaji kaay ma. alaaji nelaw nag moom dëgg yàlla. alaaji waaw dama expliqué la. alaaji lu mu wax dafa non non nelaw boo xamante ni yow la nga mujjee ba. déedéet fiq jàppatoo ca dara. naw man saqiilan tawilan nawman thaqilan xasiran nawman xasiran euh, li ngay wax fii xafiifan xasiran saqilan dafa am nelaw yoo xam day gudd te diis am nelaw yu gudd te woyof am nelaw yu gàtt te diis am nelaw yu gàtt te woyof ya gàtt tawoyof dong nag lañ ni na ah, alaaj. too fi nga moo ma toog sa bopp. alaaj waa léegi waa déglu ma waa léegi déglu ma rek. waaw alaaj déglu ma déedéet ma ma li ah, da waa déglu ma expliqué la. loo jàng non dama ne. di ah. da di dajantu ak nelaw bokkul. Oh, non dama da di dajantu dajantu ak nelaw bokkul de. da ngay toog fii ku la xool xam ne mbër mii tey daa gëmunt hmm. dégg nga waaye boo ne ciix alaaj yaas dawal say bët sa xel dem na na doon trente secondes laa la wax diggante jay-jayi googu lépp loo fi def bu lu ko nit ñi nittaliwul xamoo ci dara bu dara rëccee génn ci yow nag ngeen baal ma maanaam ngelawal wala leneen nag leneen daa ko noo ko yëgee daa ko yëg de kuy nelaw daa ko yëg de alaaj yow da ngaa wu dugg ci nit xanaa xamoo déggoo ñu naan la ku nelawul guddi nelaw bëccëg nelaw nelaw moo nekk loo xamante ni alaaji bët bu añul reer te bu reerul ndékki de waaw man kay man kay la ma gis ñu bind ko laa wax waaw non dama ne non non non nelaw nelaw mu ngi mel ni nelaw ak taxaw dajantu alaaji bokkul alaaji dajantu gi nga wax yow d'accord naa mais nelaw nelaw bi tax nit ñi naan nelaw nelaw nelaw yu gàtt te woyof waay <laughs> mel ni xam nga am na dañuy jàpp ba jàpp ba noppi di ngaas ngaasi looy ngaas ngaasi ŋas-ŋas yi waxutu nii. <laughs> waa déet ça dépend ci fooy wax ko. am ñoo xam jàpp di ŋas-ŋas rek. <laughs> waaw non non defal non defal ndànk. non boo sëggee di njàpp wala nga toog di jàpp waaw looy ŋas-ŋas yi. Euh, surtout bay dugg si diggante tànk. waaw. boo noppee pour être à l'aise mën a taxaw julli normal da ngay ñuxati. waaw waaw d'accord ñuxati gi taxul sa loxo ba dugg ca biir. non du dugg. waaw léegi nag foofu dafa am werante. aw awra wax. no non. awra wa awra wa. laal ko contact direct wa. laal. non laal bi. non non non la la la laal wi te sër wi ne ci kaw. laal wi te sër wi ne ci kaw kooku alaaji werante mën na baa waaye ba léegi laaloo sa awra waaye boo jàppee bu nuppi ŋaas ŋaas yi am foo dugal say loxo kooku nag alaaji li gën a wóor daal mooy nga jàppi waat. boobu it déedéet. boobu itam dafa wax de. boobu itam dañ ni. <laughs> Mm. dañ ni alaaji. in xasada lazatan wajadaha in lam taxsud wajadaha moo lam taxsud wala wajadaha muy in xasadaha wala wajadaha traduire nga jublu ci am bànneex te fekk amoo ci bànneex nga jublu ci am bànneex ba noppi am ci bànneex jubluwoo ci am bànneex mais am nga ci bànneex ñett yooyu ñoo yàq njàpp bu mu bi nag mooy bi nga xam jubluwoo ci am bànneex te amoo ci bànneex jubluwoo ci am yëg-yëg te amoo ci yëg-yëg du ko yàq fiq laa lay wax de lu kenn dul dindi laa lay wax ni daa laaj <laughs> jumaa jaa ngi nii Abdoulaye <laughs> xoolal photo bi <laughs> ñii nelaw ñii ñëpp tëdd nelaw nga lii lii tamit métti ah, tamit non doo saaga waaw daaka day am clim nit ñi toog déglu firi alxuraan eh pourtant day man seen di Sénégal dama jaaxal pourtant boo demee Samadiya ayoo Samadiya ci Kaaba ga am ñoom bu ñu jullee faja dañuy dallu nelaw tëdd nelaw aisément hmm. waaw nelaw aisément al masjid buñ jugee maskan li ibni sabil buñ jugee jàkka mooy dëkkuwaayu ku amul fu mu dëkk hmm. Mm-hmm. bokkul bokkul ba léegi de. Mm-hmm. asalaamaaleykum. baal leen ma. waaw baal nañ la baal nañ baal nañ yàlla yàlla boole ñu baal. alaaji boo dëkkee banlieue. waaw dama boo dëkkee Pikine wala nga dëkk Thiaroye. nga ñëw fii liggéey si. Mm-hmm. amoo fenn foo toog naaj wi tàng na. nga gàddu say mbuus di jaay ba waxtu tisbaar jot. nga jàpp julli tisbaar. wala yenn waat. say say keesu tàndaama di jaay ci kaw tali mhm. fa nga toog ndiir faw nga faw nga faw nga nelaw <laughs> yàlla nag boo fa gis ne benn tafsir benn tafsir kat bu a firi alxuraan. nga commencé concentré wu. concentré da nga concentré wu moo la yóbbaale da ngay yëg-yëg na këmax. alaaj bi nga soo waaw léegi boo ni këmaxee boo paree nga jug dem jàpp. alaaj bi nga soo commencé léegi man nelaw naa fi. Euh, alaaj xam na ko nelaw naa léegi bàyyil ma teg premier nekk nii dañuy économiser force yi de. trafic. jabu njaay jabu ngi naan ma ay. Euh, woo ba noppi. di ay tournée de proximité nag. <laughs> na. boobu daa metti boobu moom boobu moom alaaj <laughs> boobu alaaj boobu moom ah. Hmm. nan la métti. <laughs> jooju bu dee maa moom. yow alaaj ah. président Macky Sall kañ demoon maa fi dem. waaw. <laughs> waay ndaw sa dégg na la ko sa wax sol masque noonu ak ay casquette ak bañ nit ñi xàmmee ko ok mën naa dox ci mim réew te kenn du ko <laughs> waxal rek ndaw ah, demal liire laay mbaw ci tribune <laughs> wax na ko lu leer lu mel ni miti fàttali ko noonu bëree bëree bëri moo tax alaaji bi mu dogee ba heure xëdde di jot ponkal bi mënul nelaw ndaw si lim koy dafa diis bu ci alal ñuy sàcc wax na ko même si maire kan moo ñëw noonu Baleen Kumba Baleen Kumba Baleen Kumba oui eh, Kumba ñëw dëkk boo dem fële la wéegi waaw ah, koy waaye jàmm si Kamba wu dëkk Aba oui El si Kamba wu dëkk wala waaw man kii il faut que tey ma xam. jàmm daal waaw jaawoon jàttaaw. ah dégg dégg dégg waaw Aba. mais yéen man li ma dëkk gën leen ko xam Mantoulaye yow loo ci ah, xam. non non non non non non non. déedéet man kay waxuma déedéet Aba kay li nga fi lim moo bëri da ngay wax benn eh, dëkk. ak saa bokkul ak jàmm gën si ka baaw. Aba li nga lim. ñaari meer nga am. non non non jarul déedéet déedéet. daf ñuy convaincre daf ñuy convaincre waaye non déglu ñu expliquer la fukki commune ak juróom-benn moo am Pikine. mënoo mënoo am ñaari maire. waaye waaye déglu ma waaye déglu ma ñun Pikine ñu jur Pikine jur géej waaye may ñu waaye yow dama ni fukki commune ak juróom-ñeent dafa am mënoo mënoo mënoo mënoo am ñaari maire. da ngay am benn maire da ngay am benn maire ak maire commune da am benn maire ak maire vilba nga ne man lii mooy samay ñaari maire man samay ñaari maire mhm. maire Sam Notaire la ak maire ville waaye nga bëgg a dëkk ci ñaari ñaari. ñaari xanaa da di ñu ko nëbb. eh balin kumba. Mm, dëgg la kay. mais Aba Aba Aba Aba Jobi. Cey Ba sa maire Ndofène Fall wala ci des. déglu rek. ba nga wax fi Ndofène da koo fa Aba. ba ba mu wax fi Ndofène. kuy sa maire. Aba Abel Thiam. Njaga Njaga. Njaga ñaa. Fatou fat la ak euh, Ndofène Fall ñëpp meer ah. <laughs> abaa léegi Thiaroye Azur jak saaw ak fan jàmm gën si kàmbaaw mais Mantoulaye jàmm gën si kàmbaaw Mantoulaye def naa sept ans cité cité bu ma dëkk Thiaroye Azur waa léegi man nga ah. bu ma koy laaj bi waa léegi déglul déglul déglul léegi léegi ñu ngi nuyu. abaa kon fa nga dëkk. waa Senwave waaye déglul <laughs> nit mën nga am lu toll juróomi weer. ñu ngi lay déglu euh, Senwave ak Grand Moulin de Dakar ak Uniparco ak Expresso suñu sponsor yaa ngi noonu. waa Baline Kumba. am Ameth bu man man heure heure ndogu bi laa bëgg a xam kañ la bañ kañ la ñuy ndogu rek. li nga wax xam nga tey damaa bëgg a organiser kii bi damaa teel wala ay. nekkul ay ay sept vingt cinq xaw waaw xeet xeet yooyu la de. waaw yooyu la waaw. heure timis day arrière wala day dem ci kaw. est-ce dem ci kaw. maa day taal. du quarante la jëm. day dem ci kaw tuuti soog a wàccaat. ah dina wàccaat ci biir koor. dina wàccaat ci biir waaye faaw mu yëg. faaw mu de. yàgg na de. nag dog lee mu kii de. waaw ne boo noppee dem dem dem jàpp fa sa ñetti sa ñetti film dóor mu daanu. mais Ahmed ñun ñun xam nga. programme alaaji koor gi lan la. Eh, Mantoulaye. alaaji yow ñeme ngaa <laughs> na ngay dàq koor. Ah, lu muy man affaire gars yi di wax ni contrôlé wu ma de ay da day tuddal yàlla ak ay bénéfice ak ay nang nit ki xoolal man na sëñ Babacar si waroon laa gëm. gis nga gan a ngi ñëw bu saxee nga soppi saw toogin. na nga toogee woon baaxul. man munu ba ma ba ma yeewoo ba léegi maa ngi ci jaamu yàlla. ba ma xëyee nuyu naa sama jabar gunge ko mu ma mu biisu ko mu biisu ma jaamu yàlla la. ma tette samay doom sang. biisu ci koor waaw. dagan na sama jabar ah laa teg ci la xam ah ni ko bonne journée ah ci oto bi yóbbu école maa ngi jaamu yàlla boobu xëdd nga léegi ah loolu nag daga na ci wóoru koor jóge fa waaye je pense que yëgoo dara kam bàyyi leen caaxaan alaaji loolu ah, nag ah alaaji bàyyi yooyu yëg jël sama doom yóbbu école bisu bisu woo woo woo soxna soxna yi nekk fële nuyu leen woo saa yaay taal oto bi ñëw fii nii toog liggéey boobu ba maa ngi jaamu yàlla de mm-hmm. ah waaw baax na léegi jógee balim kumba minute damay dem di nelaw yi maa ngi jaamu yàlla su ma mhm. noppee Netflix lay jàpp waa ji bàyyil nelaw gi Netflix nga ma nelaw non film bàyyil film gi ah, yàlla te daf leen di seen xel Aba ah, <laughs> léegi alaaj film lay dàqee ko aba jaamu yàlla la xoolal alaaj Aba ñu ngi nuyu grand Ndoob Seck waaye université tey la anniversaire am Ndoob Seck mm. ñu ngi koy ñaan yàlla yàlla guddal fanam amiin amiin amiin alayhi salaatu wasalaam Euh, mani léegi foo nekk nii. oui maa ngi nekk El Hadj El Hadj. acca. booy booy booy ah, wér kon bu mu nekk gisal de gaawal de wér wax ñu te dem toogi. acca abaa foo ne nii <laughs> dama ni. waaw looy def ci koor gi bu mu nekk gistal. waaw waaw yow bu soppi dara ci li nga doon def. li nga doon def daal baax na. mais mais damay wàññi léegi wax. waaw boo doyee trois points ma jor benn point rek ci rond point bi après dem. waaw d'accord acca léegi waxal. voilà voilà merci beaucoup l'actualité du trafic urbain di wéy di si FM quatre-vingt-neuf point sept sant jaar nañ si xam mooy rond point bu Boulangerie jaune ñu ngi bàyyi ko rond point liberté si si boppam foofule day ralentissement ci drage boobule ak ay déviation ci ñeenti sens yëpp dañuy yéexal dem beeg dëkk bi su ko defee aussi fii si Boulangerie jaune ñu ngi ko fii am nga choix soit boo jëlee rek boo jàddee yaa ngi jëm fi xam mooy entrée bu sudee kër góor gi foofule foo boo jëlee à droite yaa ngi progressé tout doucement hôtel échangeur bu Sacré-Cœur waa là-bas ça se complique un peu pour bàyyi ko boulangerie jaune boo d'autres bàyyi ko di côté de Wakam si day am quelques ralentissements ci boobu les ronds-points ci kaw échangeur partout si mën nga progresser tranquille franchir l'autre échangeur c'était à hauteur de la Sacré-Cœur Gorgui daal di hôtel échangeur bu nekk fële nga xam moom mooy rond-point wala boo ko Carrefour bu université Carrefour bu Nourtal El Hadj jaajëf waay aywa sumeer ñëwal. yónnee xaalis warul a jafe ñun waa Senwave neneen lañ koy defee bu gën mën nga yónnee xaalis say soppee si lu gaaw foo mën ci nekk te doo fay dara waaw waaw dégg nga bu baax doo fay dara noonu la yombe mën nga doxi sa soxla si taw féex daan na lii gën a yombal sa àddina si lu amul benn sikki saka wala xel ñaar yónneel xaalis si lu gaaw wóor te doo si fay dara téléchargel application Senwave ngir yónnee xaalis bu jóge bitim réew di ñu transfert bu njëkk ak code bi di diaspora ànd si ak suñu partenaire bi di UBA. l'écran mu ngi leen di ñaanal kooru jàmm. yaay yaa ngi dégg l'écran ci rajo bi. ah kay sama doom meew bi ñu gën a tàmmu meewu nag pur xam nga li muy tekki. waaw waaw dessert yi ñu gën a neex ci ndogu te bëri ferñeent. <laughs> laax jaakiri soow. Mm. <laughs> yow ni nga bokkalee. <laughs> l'écran moo ngi leen di ñaanal kooru jàmm l'écran firndeel mbégeel bi gën a wóor Vous êtes jeune et âgé entre 16 et 35 ans, le Centre sectoriel de formation professionnelle au métier du bâtiment et des travaux publics de Diamniadio vous informe du recrutement pour les formations au certificat professionnel de spécialisation. Peintre applicateur de revêtements, opérateur topographe laborantin géotechnique, installateur en plomberie sanitaire, installateur en électricité bâtiment. Ces formations sont financées à hauteur de 90% par le 3FPT. Pour plus d'informations, appelez au 77 740 17 79 77 740 17 79. Le Parti républicain pour le progrès, PRP. Waaw, daal dinañ koy créé. président Déthié Fall njiit la le courageux député du peuple et des wax daal dinay jaajëfal na kilifa dina yëpp opposition société civile ak taskatu xabaar yi de la presse yéen lay delloo njukkal ne Déthié Fall yemu ca mi ak ci bitim réew ci mobilisation exceptionnelle bi nga xam ne rek amal nañ ko keroog ba ñuy def ko lancement wu ne le président mi ngi xamal ne dootul yàggati dara biir ville yeeg village yeeg ruq-ruqaan yi ne dana diisoo ak askan wi eh, ci ëllëgu Sénégal mu leen di waxal mun na xare nu tax dama ne képp koo xam ne nag bëgg ngaa am lu gën a leer ci parti républicain pour le progrès te di cafal jiite ko wooteel ci 77 935 40 24 wala ci 77 434 11 45 ni lay demee Cey le du peuple et des cœurs Déthié Fall la constance yéen électricien yi ak yéen ñii di professionnel du bâtiment ak particulier yi xibaar bi yéen a ko moom waaw waaw bu leen yàqati seen xaalis di jënd leneen lu dul tube orange bii di Sosenap maa la ko wax ndax mooy bi gën tube orange bu Sosenap longueur bi 100 mètres lay def teg ñu defaree ko mu respecté te méngoo ak norme internationale déedéet kay ma dolli tube orange bu Sosenap lu wóor la ñu ko liggéeyee te mu ànd ak qualité roy du nuroog pire te leen ma bu baax saa boo leen jëndee tube orange na ngeen xool bu baax étiquette bu ñu bind Sosenap pare gu ma dee Sosenap mooy tànnet bi gën Sosenap am na itam ay tube annelé normalisé ba ci diamètre cinquante Sosenap 1983 ba tey lu yàgg dëgg la. waa Grand leen de Dakar ñu ngi sant di gërëm suñu boulanger Sénégal yépp ñuy liggéey guddi ak bëccëg ngir jàppandil ñu suñu weeru koor Grand leen de Dakar mu ngi leen di ñaanal kooru jàmm. koor bi ñëwati na Sofia dikkati le meilleur allié durant ce mois de ramadan si bien Sofia ak beurre bi di Sofia lu la neex ngay defar laax caakri pancake crêpes gâteaux beignets yaay bañ Sofia vous aidera à préparer des ndogu de qualité afin de satisfaire toute la famille et toujours assuré beurre bu bari fem laa lay beurre Sofia mën ngeen ko am ci format yëpp ngir bégal njaboot gi yëpp Ramadan Karim ak Sofia alaaji mm. te su tay bi nag mm-hmm. Mm-hmm. ñu jéggal ñu waay mitti na mm-hmm. démb rek ci de presse bi ñu ngi koy wax ak ki xale bu jigéen bii am ñeenti at yaayam waajal ko pour mu dem jàngi mu gi gisuñu ko seet ko gisuñu ko laaj ko tamit waa daara ja oustaz bi ne nekku fi ñëwul ñu wër bay bëgg a dee ba xabaar yu mujjee ñu ne ci ab foos lañ ko génne xam nga xibaar yi doon na fi wax ne sax dañ koo rendi ba pare doo koo sànni ci foos en tout cas coow li daal bari na ci. mu nekk lu méttee méttee méttee lu métti lu méttee méttee méttee alaaj ci xale bu am ñeenti nan la war a souffrir rek ñu ko sànnee ci foos bi ba ni mu faatoo ko loolu loolu alaaji loolu métti na ñu déglu yaayam ak mbokk mi. Symbiose ñëwal. xale bi daal luñ ci xam yaa ngi ñëwaatul rek lañ ci que tamit waxam leer na. déedéet saam waxam kii wul. ginnaaw bi xam ne yàlla loolu yàlla dogal rek dogal yàlla moom kenn mun ci dara. moom ana papam xanaa papam nekku fi. papam ñëw. Caara Jóob Jóob laa sant. xanaa jàngi laa ci am. ci ngoon gi daal. yaayam sang na ko fii solal ko ay yére fii. muy muy muy muy jàngi rek siiw loolu rek laa ci am. moom dañ ko rey sànni ko ci foos bi wala. ah ña fa demoon de loolu la ñu wax ne man egg gisaguma ko ñi ñi fa demoon daal ña ko loolu la ñu wax waaw loolu la ñu wax waaw nee daal ca foos ba lañ ko fekk. loolu noonu wax. waaw xale bi moom sobeeg la jàngi wala si ngoonte la jàngi wala moom bi mu gontoo la mbir mi am. ci ngoon bi mu añee ba pare la jàngi bi nu jullee tisbaar ba pare bi ba aaru ngont bi la dem gontu jàngi. Hmm, déedéet dellusiwaatul. ngeen ko doon wër ñetti fan gis leen ko. laay ñetti fan ñu di ko ko wër. waaw ñetti fan ñu di ko ko wër. loolu daal lan ci am. man de loolu laa ci am. xale bi moom ñaata at la am. nee dugg na ñeenti at. Hmm. waaw man Assane maa Assane Diop maa maay bàyyi maay bàyyi euh, xale bu jigéen bi jur xale xale boobu ñu demee daal mooy euh, dafa daan xëy di jàngi bu wàccee bu ngoonee mu gontu dem ngoon gi nag ci lañu gontu dem te dara ànd ay magam it dem bu ñuy ñëw it ñooy ànd gi ñëw waa ñibbisi ah xam naa diggante boobu daal lu fi xew foofu la xewe ñu jógee ca daara ja war a ñibbi si diggante boobu daal lu fi xew foofa la xew waaye ñoom dañ daa dañ ñëw ak groupe lañ daa doon ndax ay mag rakk la ñu doon groupe boo dem bu ñu wàccee ànd ak ñoom. àllarba ñu nag bu ko nee ñëwee ñu laaj ko ñu laaj xale yi ni leen ana ana ana Ndeye Ndiaye ñu ni Ndeye Ndiaye di mu nga daara ja yaayam dem fa laaj laaj ko sax da ko woo daa jëkk woo sax oustaz bi laaj ko mu ni ko mu ne ko Ndeye Ndiaye kat nekku fi moom mu yaakaar ni daa ne ci kër yi ci des ci kër ma mbokkam yi ci des mu dem fa seet ko seet ko bu mu ko seetee seet gisu ko nag ci lañ ma yóbbu euh, euh, xamal ni ma ndey jaay kat euh, daa daa riir. jamono bi ngeen gisee ni dañ ko sànni si biir fosse bi yooyu yenn heure la woon yooyu yenn heure la tombé woon guddi la woon wala bëccëg. benn bi ngoon gi rek. ngoon ngoonu àllarba bi. ngoonu àllarba bi. waaw bi mu waree ñibbisi war a ànd xel ñibbisi gune da koo jiitu. Mm-hmm. ñëwul. mu yaayam laaj leen ni leen am na ndey jaay mu ne ndey jaay ñu ngi ko bàyyi daara ñu ko bàyyi daara ja mhm. moom mu dem mu dem mu dem mu dem fekku fa xale ba àndoon naa wax nañ ma ne ñu ma àndoon naa xale yi bay jóg bay ñëw loolu wax nañ ma ko waaye comme fekkee moom moom da naa wax nañ ma rek waaw léegi nag léegi nag moom sooy bu mu demee ca daara ji nag xool ko gisu ko nag foofa lañ ko mujj gisee ñu ñu ñu yaakaar ni xëy na daa daa daa daa réer ñu topp di ko wër ñaari fan. Hmm. alxamis bi ak ak àjjuma. Euh, papa léegi yéen lan moo leen xamal ne xale bi dañ ko sànni ci biir fosse bi. alxamis bi bi bi bi ñu wëree ci guddi euh, guddi àllarba boobu. balaa ne koo wër ba asamaan di alxamis ñu yëndoo wër. ba àjjuma bi ñu yëndoo wër ba guddi. Mhm. ba guddi nag ca la benn waaye doon dem ca doon dem ca poos ba. comme moom foofa foofa la ne. mu xool na kubéeru euh, poos bi mu xool ni ni mu meloon melatul. mu ne ko poos bi daal te te dañ ko dañoo dëpp kubéer gi ndax waaye dañu ko xaw dañu ko daaj dañu ko daaj ah nee dëpp dëpp dëpp ko. xam naa daa yàkkam ci. léegi nag ci la ko ci la ko duppee ba mu ko duppee nag dañ ko bëgg ko nii rek. seen seen xarit ñu ngi lii bi ñu ciy jot boobu ñun daal bi ñu may woo di ma ko wax boobu boobu dix na. dix heures na guddi waaw aajuma aajuma ah, si si guddi. Hmm. boobu di ne paase na. kan ngeen njort ni moom moo def euh, ñaawteef boobu. tey jii bu soobee yàlla. Hmm. ñu ngi ñëw ñu dem Thiès. Hmm. pour pour pour ñu jël ko ko yóbbu ko yóbbu ko Dakar. pour ñu def ko ci. bu la gën a xam ne dëgg-dëgg mbir mi la ko dama lay waxal ñu en attendant rek mais. man wax dëgg yàlla lu leer nañ mënu ma ko wax lu dul. lu dul autopsie daal daal ñu xam ne ñoom ñoo ñoo def ko am nii lañ ko def. waaw ah, ah, xale bi moom ana ay waajuram waajuram ñu góor ak yu jigéen ñi ngi fi wala nekkuñu fi. waaw yaay mu ngi fi yaay mu fi waaye moom daa ba daa ba néew fi mu ngi Italie. waaw lii moom day faral dem ci dëkk bi wala lii mu fi doog dem. lii kay mosuñu koo gis. lii kay guleet. lii tund jandeer bi. lii tund jandeer bi. mosuñu fee dégg lu mel nii. ah ci man bokk mosuma ko fee dégg. guleet mu fi soog a am. guleet mu fi soog suñu borom. dina waar de. mais su tey bii naqari na di. na de xanaa de di artuwaat ci waajur yi rek ñu gën a farlu ci seen doom yi parce que bii mooy ñaar bi semaine passée parce que à bi am na beneen bu amaat côté Louga. te barki démb aussi xaw ma ñooñu fu ñu jógee ñu ngi may signaler benn xale boo ubbi woon bunte côté parcelle ci saa si ju kidnappé ko mais jot na fee feeñaat xale boo am trois ans côté yooyu tamit. donc tranche euh, d'âge boobu ñooy réer fan yi ñenn ñaa ngi feeñ ñenn ñi feeñ ñu nu ñu gën a yokk vigilance surtout ñun parents yi. mais Mantoulaye pourtant parents yi ils sont vigilants de. ah xam nga am xam ne xoolal xale bi ma lay parce parcelle. dañoo fëgg seen bunt mu dem ibbi ñu jël ko di coppet dem ak moom. waaw xam nga loolu doone xam loolu doone waajur yi. dañ ko bàyyi mu génnoon nelaw mais ñu wax mais xam nga boo ci rajo buñ fëggatee. waajur dina xam ne bu ma bàyyi doom mu bi na. c'est sax nag gis nga sonnerie alaaji. Mm-hmm. bu ne keng sonné. wala ñu fëg boobu bëggee dégg dëgg xale ci boppam moo warul jug dem di ubbi ji. waaw waaw loolu xale bu am fukki ata euh, euh, lu moy fukki at. di dem di ubbi ji buntu. Mm. mooy dëgg. mais ne ko cas bokkul ak punkal moo xam ne alaaji fukki at ak juróomam teg na balaa nga koo xëcc ba naan li bërti bërti gi dinañ ko dégg. doo a yóbbu léegi nag waajur yi tamit munuñoo takk seen doom yi ci tànku lal yi. munuñ leen a monote. xale cim kër alaaji day jàngi. day jàngi day génn xale cim kër day génn. dina doxi dina doxi. waaw waaw même bu dee dox bi it mën naa bañ a yaatu. dégg nga loolu. waaye kay waaye yow ma ne yokk ngeen bay tuuti mantulaay yokk ngeen. ñu gën mantulaay xam nga lan mooy dëgg. tooñ moo baaxul tooñ moo baaxul. <laughs> comme ñu ngi tooñ. tooñ moo baaxul te mënoo leen tere tooñ. alaaj tooñ baaxul. laa a gëm de. xam nga xale boobu 3 ans 4 ans dem nga fob ko. xam loo ko def ci yoon bi ñaata doomu aadama tëmbal ci foos. alaaj tooñ bi ñaata doomu aadama. Hmm. ñoo xëy. Hmm. xool seen oto. bàyyi faal mii rek di jaay fii nii ci place daaw da mboogu fii nii temps yii passé. waaw dafa maa yónnee oto. mais birig ba. Mhm. waxuma ay demi birig de birig. Mhm. dafa suux ba dugg ba ba dugg ci biir oto bi mu ne xoolal ni nga def sama oto bi. xam nga loolu jël PSC yooyu nekk ci biir noonu. waa loolu loolu moom mooy lan. léegi yàqal ko loo xam ni. yow yow kayit yi aduna du yàgg yàgg alaaji. Ah. ba kayit yooyu jëriñ beneen oto. dégg nga loolu. mi mi loolu loolu lan loolu lan mooy projet bi comme ni ko booy di waxee. lan mooy projet bi xam amul. wallaahi doo xam. waaw nit gaare otoom si buntu këram alaaj ah. génn fekk ñu tojal ko ay faaram. Ah, man mii jël xeer pëq pëq ñaar yi. leer na leen kii mais ki def lii lii lii. Oh, tey dama xëy fekk ñu xoosal ma ñaari xoosu gudd yoo xam ne. ma ne xoolal waajuru xale yi xoos lii su ñu xamoon seen doom yi li ñuy def ni muy def ci xolu ak après oh, préjudice bi mu koy jural. Oh. wallaahi dinañ gën a surveiller seen doom. non c'est que non parfois gis nga tooñ day ndaw mais bul ko xeeb. tooñ lu ndaw ndaw bul ko xeeb. tooñ mënta ndaw mantu. wallaahi. tooñ. bul ko xeeb. man de alaaji li ma jaaxal mooy. Mm. doomu jàmbur ju toog këram. Mm. alaaji nga ne ko coppet jël. Mm. sàcc ko. wala nga jotee waajuram nga ne ci doom ji laay jëlee revanche comme li xewoon Tëngéej. waaw. loolu moom non mais vraiment tooñ tamit am na nag. ah baax na. ah mais dossier démb bi nag yi fu mu toll. dossier ban la. papa ji feeñagul ba tey communiqué yi. dossier ba. mooy xale euh, bi bi bi bi baay bi doon tëddee. ah tey gis naa benn journal de source a bi ni na ci de nee procureur ci boobu mujj na caa dugg. Ah, ah. xale bi surtout xale bi. nee na iPhone yu itam plus moo moom moo ah, ah dafa dafa dafa am na ko ko for naa boo demee ne ko woo jot ko daal di fay téléphone ba. waaw mu nga nekk Sendou. képp koo xam ne gis na ko nag na woote ci 77 550 56 81 kii moom mi ngi tudd euh, Siré Kébé nee na daa réer benn sac bu xonq benn pochette. titre de séjour bu France carte vitale carte bancaire quinze mille francs képp koo xam ne gis na ko nag na woote ci 77 657 64 78. Euh, Fatou Kiné euh, baaxuma noonu la daa réer la benn euh, benn lan zone rouge nee na dafa réer la benn paañ la ah. sëru njaago zone waaw la bu zone am tamit lu xonq ci benn taxi ko gis daal na nga woote ci soixante seize cent vingt trois non cent vingt huit quatre vingt dix trente cinq soixante seize cent vingt huit quatre vingt dix trente cinq alaaji deuxième tës non réew mi nag vraiment tooñ tam am na de. mooy yéen. deuxième tës bi moom alaaji. Mhm. en tout cas ab kilifa daal lañ ci tudd. Mhm. waaw. kilifa gi tudd waaye daal. ñun sax bàyyiwuñ tur wi. Mantoulaye dimbali ma. Mhm. mbirum sàcc la noonu. benn borom boutique la. waaw. dafa am doomu kilifa gu mag ku sàcc deux cent cinquante millions kër papam bi ko papa ji jàppee mu dem ni daf ci jox borom boutique bi soixante million Mm-hmm. jàpp nag borom boutique bi caxat caxatee caxat caxatee bu metti mm-hmm. tudd ci nag ay tur ba ci takk der yi ko jàppoon tudd na ci tur boo xam ne daanaka bu ñëpp xam na. police boobu moom sii woon na fi moom. torop police woon na fi ci ay mbirum dóor sax nag faf. Mm-hmm. ci borom boutique boobu noonu. lu lu raw dóor kay. waaw wax nga dëgg waaw. borom boutique boobu noonu. borom boutique ba waaw. te moom gisul tinu. moom nee na gisul tinu. xanaa doomu kilifa gi xaritam la. doomu kilifa gi euh, client wam la daan ñëw ci ah. boutique bi di jënd. moom na depuis boobu ba tey nag dañoo jël otoom gaare ko ci parkingu kilifa ba. te ne amul sañ-sañu jël oto ba. plus de ah trois ans. te kilifa gi doomam moo sàcc xaalisam. léegi ana doom ji. kilifa gi dafa jël doomam yëpp ci oto yóbbu. léegi moom moom nag ñu nangu bàyyi xaritu doom bi ak moom ci oto bi policier yóbbu leen. Ah! Dakar ba Thiès. te kilifa gi moo sàccoon xaalisam deux cent cinquante millions. ah waaw ndax moom doom jee ànd doom ji di ko woon kër yi ñu mu jox xaalis bi ñu ko woon ñooñu di génne. Euh, mais mais doom mais doom ji moo ñëw wax ko ne ko borom bitig bi dama ko cay jox. waaw. ah ah ah léegi borom bitig bi moom moo ñëw. moom moo ñëw moom ci boppam. Euh, Sumer. jox ñu borom bitig bi. d'accord gannaaw la mooy problème. bon man 2017 dama ubbi woon benn boutique sama koñ terkale di jaay boutique alimentation bi ma commencé daanaka waa koñ bi yëpp ñëw di jënd ci man ma dawal un an benn doomu grand frère grand frère bu ñuy wax doomam bu tudd ñëw sama boutique jox ma vingt mille na ma tons kii sama xaalisu école la dama ko fi bëgg bàyyi chaque fois bu may dem école ñëw jël dara mu bàyyi ko fa chaque jour muy ñëw di jël bu léeg-léeg bu wàccee ngoon si ñëw jël ay boisson ay pain corned boofu affaire yooyu mu jël jël ba benn instant ma xalaat ni li ma joxoon war na jeex ma calculer mu mu mat ëpp cinq cent franc ma ne ko yaa ma yoreel cinq cent mu joxaat ma beneen vingt mille continuer di jël di jël di jël di jël ba benn instant ma calculer mu mat fa sëkk bi mu fa matee ma ne ko jeex na mu ne ma léegi jox ma su ma jotaatee xaalis dinaa ñëw déposé def dépo ma jox ko bi ma ko joxee di ko jox di ko jox ba benn instant. sentir gisandi booy bi ñëwatul ci ko boutique bi quoi ma calculer mu mat vingt sept mille cinq cent pendant un mois may wër booy bi gisuma ko mais ci biir un mois bi noonu comme ñoo bokk koñ may dégg benn rumeur ñu ne dafa sàcc deux cent cinquante millions seen kër taw ñu koy pendant un mois kenn gisu ma toog ba vingt huit décembre benn vendredi xëy di dem sama boutique di liggéey ni ma génnee sama kër rek dajeeg benn Ford bu noir bu gaare sama bundu kër ma nit lem ko ci ginnaaw bi quoi ne ma c'est police ubbi oto bi ne ma dugal ma dugg bi ma duggee ma gis toog ci biir oto bi quoi ak beneen policier ci kanam ak ñaar ak keneen ci kii dawal ma dugg toog ñu tëj oto bi ne ma c'est la police ne ma ndax xam nga booy bi man leen xam naa ko fii la dëkk ni ma naan fii la dëkk papaam doom bi di génn ci kër gi di ñëw bi mu ñëwee ba ci kanamu oto bi mu taxaw ci kanamu oto bi mu taxawee ci kanamu oto bi policier bi ne ma grand booy bi xaalis génn ko man nga xaalis lan mu ne ma vingt millions man ne ko nga nangam tàndaayam génn xaalis bi dóor ma crochet tell ne ma dañ bëgg nga nangam tàndaayam génn xaalis wala ñu rey la man la tey di ngeen ma rey mais xaalis fu génn kii il ma vingt sept mille cinq cent ñu dóoraat ma tell di ma dóor pour ñoom waruma wax waaw lu ñu wax rek waruma wax déedéet quoi lu ñu wax rek waaw laa wax quoi escanté ma ci biir oto bi man leen kii joxuma un franc maa ngi takkoon benn sakos ñu ubbi sama kalp sakos jël ci sama benn iPhone 7 plus jël ko ak soixante mille francs yu ci nekkoon ak beneen Samsung j ma dee ne sama jabar c'est la police may ñu ñu dugal ma ci biir néeg bi papa xale bi taxaw ci buntu néeg bi man ak ñaari ak ñu dugal ma sama biir néeg tëj buntu bi ubbi sama olmaar yëpp bi sama yére yëpp daaneel ko ci suuf ma suufu lal kaw ak fépp fuy rokk ci biir néeg bi xool nañ fa gisuñu fa dara ñu ubbi olmaar bi morceau bu weex bi ñuy lal doo ko teg yére yi mu yëkkati morceau bi fekk fa trois cent mille francs mu jël ko ne ma yow da dul génn xaalis man leen kii joxuma xaalis mu ubbi bunt bi ne paa bi wàccal ci suuf nga xaar ñu paa bi wàcc ci suuf biñ paree ñu génn ma néeg bi dugalaat ma ci biir oto bi université bi tourné laaj fu diw dëkk mu cité benn tourné ko diw fan la dëkk mu ne ko mi ngi dëkk fii suuf bi ñu demee kër diw boobu ñi yéeg policier bi ne salaamaaleykum ani mu ne ko dafa génn jabar ji ne ko dafa génn mu ne ko jox ñu numéro téléphone mu jox ko numéro téléphone am mu ko ne nga def la police mu ne ko ça va mu ne ko xale bu ñu àndal il paraît que ni dafa am mu la jox bi mu waxee loolu papa xale bi ne nii ne nii bi xool ko mu coupé bi mu mu ne ko mu tourné laaj doom ñaar nga ko jox mu ne dama ko dénk 60 million may ko 10 millions mu ne ko ah mu ne ko waaw mu coupé mu dem taxaw nële moom policier bi jël téléphone woowaat gaayan bi wax ak moom lu yàgg bi mu wax ak moom lu yàgg mu ñëw coupé téléphone bi wàcce ñu ne ko fu mu ko kooku ñoo bokk koñ bi ñu demee ba buntu kër kooku diw moom bi ñu taxawee ko bi mu wax ak moom lu yàgg après mu ànd ak booy bi dem ay quinze minutes mu ñëw bi mu ñëwee mu ngi yor benn sacoche bu marron bu toll nii quoi ku ko gis di xam ne lii xaalis la ñu dugalaat ci biir oto maag booy boobu ñu dugal copain booy bi quoi bi ñu duggee mu ne ma yow da dul génn xaalis bi booy bi sax copain bi nee na dénkoon na dix millions cinq millions la jox mi ngi nii quoi yow da dul nangam génn xaalis man leen kii joxuma xaalis ñu dooraat ma téel xaalis bi du génn leen joxuma xaalis ñu ne booy bi yow fan la yi mu ne ko ana yeneen cinq millions yi mu ne ko dama ci jënd ay scooter noos ci mu ne ko fu scooter yi ne mu ne ko mi ngi en face sami wax ak yi foofu récupéré ñetti scooter dugal ko sama biir oto fourgonnette bi ñu ko dugalee sama biir oto fourgonnette après papa xale bi taalaat otoom jiitu suñu oto bi ñu ci ñun topp ci sama oto fourgonnette topp ci ñu dem ba ginnaaw CTO benn hangar paa bi dépôt bu nekk foofu paa bi wàcc gardien bi ubbi oto ubbi bunt yi quoi oto yëpp dugg bi oto yëpp duggee jël sama fourgonnette gaare ko nële après policier bi woo papa xale bi ñu taxaw ne papa xale taxaw ne wax lu yàgg bi ñu waxee lu yàgg papa xale bi ci boppam moom ñëw ubbi oto bi jàpp nii ci mbaggu doomam wàcce ko jël ko dugal ko ci biir otom taal otom génn dem beneen boy bi copain boy bi ñu jàppandoo woon ñu dugalaat ñu ci bu nekk ci suuf pont Yaraax bi ñi gaare foofu ndaxte ñoom ñi ngi gaaroon foofu benn Kia Optima bu bleu bi ñëwee ba foofu man bi ñu wàccee ñu dugal ñu ci biir Kia bu bleu bi bi ñu dugalee moo doon dawal sama oto bi jël Ford bi ne ñoom lañ indi woon def opération bi jël yoonu ville ñu dugal ñu ci biir Kia Optima bu bleu bi ak policier bi doon dawal ak beneen policier bi ñu jël yoonu péage di dem di dem romb Pikine Guédiawaye

opération bi moo ñu jàppoon yóbbu ñu ba Thiès bi mu ko nee maha mu ne ko waaw monsieur le député mu ne ko ani gaañi mu ne ko ñu ngi nii mu ne ko récupéré nga lépp mu ne ko ay doomu jàmbur ubbi kalpem ni yëkkati cinq mille francs jox ñu nañu paas leen ngeen ñibbi su ma paree enquête bi dinaa leen woowaat ñu génn jël jakarta bi ñu jëlee jakarta comme yoruma benn téléphone ma abu jakarta mayen bi téléphone quoi ne ko abal ma ma woo sama waa gàlle quoi sama yaay war mu ne ma ma ne ko maire waaw man de maa ngi nii Thiès maa ngi ñibbisi mu ne ma Thiès ma ne ko mu ne ma dañ ma jaay benn iPhone Thiès mais iPhone bi yow yaa mujj utiliser quoi Facebook quoi ma ne ko foo jëlee sama numéro mu ne ma dama gis ci suufu Facebook noonu ñu bind ci sa numéro quoi ma ne ko waaw ku la ko jaay mu ne ma waaw ma ne ko benn gaay mu def rastamaan nii te xees mu ne ma waaw ma ne ko léegi la bëggoon mu ne ma compte kii bi laa bëggoon kii quoi ay claw bi ma coupé waa ji ma xëy dem tribunal porté plainte bi ma porte plainte ñu jël dossier bi envoyé ko central pour ñu def enquête centrale woon nañ ma septembre 2019 entendre ma quatre heures ba dix heures ci guddi numéro yaa ngi nii bu njëkk bi moo nekk nii gis nga plainte 32 14 26 février 2019 soit transmise 22 44 2019 du 9 avril 2019 commissariat central SU lii ay réclamation la dama jaabante tribunal ba sonn ñoom entendre nañ leen ak doomam woon nañ leen ba entendre leen mais dossier bi mënul fexe ba jugee central pour dellu tribunal jaabante naa fu ne dugg naa fa fu ne dugg bi ma ci doxee dox dox ba sonn am benn kilifa bu ñu ma booleel tribunal ma dem mu bi nga xamante ni moo yor dossier bi mu woo ko ne ko moom commissaire bi dugal ma biir bureau ne ma affaire bi nu mu demee ma expliqué la expliqué ko lii ma la expliqué yëpp mu ne ma est-ce que lu am la man ko effectivement lu am la mu ne ma am na ay témoin man nag am na ay témoin man nag booy bi ñu jàppandoo woon yóbbu ba Thiès mi ngi fi mu ne ma naa ko indil booy bi ak sama benn nijaay boo xam ne fekkee woon na fee ak sama beneen copain deuxième bu ñuy defaat ñu déglu ma ma waxaat la même chose booy bi jël parole copain booy bi jël parole wax mu ne kii du ci dara booy bi moom la woo quatre heures du matin ci ginnaaw taatu fenêtre mu sànni ko ñaari saaku vingt cinq kilos bi ñu demee almadi compte ko compte xaalis bi mu nekk deux cent cinquante millions est ce que yaa may dégg ma jugee ci loolu ñu ne ma léegi demal toog nga déglu ma dégluwaat lii nii dernière euh, entente bi mois de janvier la woon huit janvier première bi euh, septembre deux mille dix neuf la woon ma ñëwaat toog di jaabante tribunal fu ne ma dem fa saa yu ma nga toog pareeguñu ci enquête bi moo gën fu nekk nga dugg fa waaw kii ki nga xamante ni moo yor enquête bi nag muy yàlla jéem na ci lu ne lu ne jéem na ko ci mais xam naa ne mënu ci dara da ngaa moo teg sama loxo ci sama dossier man na xamal lan laa bëgg sama alal laa soxla parce que maa ko moom samay këyit oto ngi nii ok yow léegi bi ñu ñëwee sa kër li ñu jëloon sa kër foofu noonu xaalis bi ñu jëloon sa kër ak sa oto euh, loolu yëpp ba léegi jotoo ci dara jotuma ci dara valeur huit millions cinq cent. trois mille huit buy jar six millions laa amoon ma teg ci cinq cent jox ma Renault Master muy jar sept millions jël ci man iPhone buy jar Samsung buy jar cent ak sama téléphone jabar buy jar cent mille jël ko deux ba léegi ñu ngi jël sama oto mi ngi fii ginnaaw Sétiwoo ñu gaare këyit yaa ngi nii. dem nga ba gis ko. te commencé na yàqu li tax ma ñëw fii nag dama ñëw fii pour ñu may dégg sama oto laa soxla nekkul loxo civil la nekk ba léegi may naa leen trois jours fii ak vendredi sama oto bu ñu ko defarul jox ma ko weekend bi dinaa dem jëli sama oto te lu mu lu lu fa am rek ñi xam ne ñoom ñoo ko parce que dañ ma jaay doole oto bi nekkul ci civil nekkul police. ci civil la nekk ok yéen même même gars yi bi ñuy def descente sa kër euh, ñoom est ce que am na lu ñu la wan loo xamante ne di nga xam ne ñii ay police. wanuñu ma dara déggoo li ma la wax dama génn sama kër rek ñu pakatama dóor ma mën a dugal ci biir oto bi ne ma c'est la police du mandat du dara amul dara luñ ma wan ak li ñu doon torturer yëpp. dara wanuñu ma dara jusqu'à présent. te leen euh, yow euh, benn gaañan bi nga ci xàmmee que ne kooku noonu policier la kooku rek nga. kese kese ñëpp xam nañ ko. moom moo ma doon dóor mënoo te ma di ma dóor. yóbbu ma ba Thiès jox ma 5000 francs dama demal ñibbi. maag booy bi ñu jàppandoon mi ngi fii Derklé. yaa may dégg léegi nag sama oto laa soxla. may naa leen fii ak jours bu ñu defarul sama oto jox ma weekend bii fii ak vendredi bu ma jot sama oto bi dinaa dem ñoom ñoo ko def parce que ñoom duñu ay policier duñu ay dara euh, kii nañu nañu comme man civil nañu comme nekkul ci police ma continuer toog xaar sama dossier ba keroog procureur di ñu woo di ñu atte mais sama oto moom dootu ko bàyyi ak ñoom parce que dama ko soxla soixante mille francs la ma doon may par jour oto boobu 2018 ba léegi ñu ngi ko téye d'accord kon yow yaa ngi saisir sax procureur bi pour mu euh, euh, woot woo leen ngeen atte ñu atte dossier atte vraiment lii laa bëgg maa ngi woote loolu quoi procureur mi nga xamante ni moom ñun la fayul sama bopp keroog bi ma jógee Thiès mënoon naa dem attaquer leen mais dëkk bi dafa am yoon ma jaar ci yoon vingt millions mënuñu la ko jox ñi jàpp la yóbbu la ba Thiès jox la mille francs ne la déemal ñibbi wax bu dofee ka koy déglu na nekk nit booy bi moo sàcc seen xaalis génn pasar pasare ko ñañ ko jox fekk nañ ci ñoom xaalis man trois cent mille francs nañ fekk ci man te sama xaalisu boutique la samay preuve ngi nii oto yi ma yor yépp kayit yi ma bandaa am oto yaa ngi nii kii de jar dellu si suba de. lii de alaaj yomb na trop jar naa dellu si suba nag. Ah. lii yomb na trop trop trop. nag kii doole nag alaaji. <laughs> man alaaji police bi tudd na turam. <laughs> tudd na turu euh, euh, euh, autorité bi. Mhm. tudd na turu doomu autorité bi ak rakk autorité bi ak. fa ñu dëkk fa ñu ah. lépp mantulaay moo ko moo ko dagg. ñoom ñëpp seen turi la la la. ñëpp seen turi autorité. Ah ku ne ci dossier kay tudd na la ñëpp autorité la. kii li muy wax lu mu xam la bu mag autorité bi APR la bokk sax faf ba mu gën a leer. doom ji sàccoon fi deux cent cinquante millions loolu sa juróom na fi coow. fi ñëpp ko yëgoon. mais. mais moom. waaw mais moom mii tamit moom ana ay mbokkam. moom pare moom sax dafa mel ni ku xam lu parce que mi ngi naan oto bi bu doon police moo ko immobilisé téye ko wala gendarmerie. du am sañ-sañ dem jëli ko. parce que policier dañ ko dawal waaw dañ ko dawal ba ci parking waa foofu noonu angaaram ñu teg ko fa. bi wax loolu laa donc ci angaaru civil la waaw waaw waa ji ni ñu ko jàppee sax. il s'est laissé faire. waaw ni ñu ko jàppee mu nekk yoon. parce que amul benn laaj alaaji alaaji doo ko doo doo ci mën dara. ay policiers yu ah, ñëw mënate la non fu ñu la yóbbu la dugal ci oto yóbbu la ci beneen yóbbu la sa kër. waaw loolu moo dul yoon. police bi la déplacé Thiès ba Dakar. déjà mooy nekkul yoon. non non moom Dakar lañu ko jàppee. waaw moom laa wax yóbbu ko këram vérifié xam nga loolu loolu. ba tey si ki ne Dakar. bu amul ordre bu tax mu jàpp si. waaw police bi ñu mooy police bu siiw ba. mooy police bi ci coowal Jakarta waaw ok. ah waaw parce naa ba xale ba deewuloo. Ah, dafa dee ah, waaw moo tax ma affaire il s'est laissé faire dafa dee woon de. alaay dafa dee woon yoon. yoon mais mais alaay xam nga lu mu doon daw moom it. moom mii itam mënoon naa fipp ci kaw gaa yi dee. waaw dee góoma de. mais après policier boobu ci boppam nee na moo ko jox 5000 ne ko ñii mënuñu protéger seen doom ba pare. yéen ñaar yëpp xam nga waaye dafa jël yëpp ci oto bi gën a ba pare mun a ñooñ na leen yóbbu mais ñooñ ba nekkee foofu daf ne leen daf a mu ko woowee wax ak moom ba pare autorité bi daf ne ko du ñu jël seen ba pare bëgg yéen moo leen jox ku ne cinq mille francs ni leen paas ah, jaaxal di ak bàyyam bi tëj du nit ñi non c'est que mais ki sàcc kay comme que nee nga ko ciix waaw koy gis sa sàcc dama yaakaar seen objectif du du woon pour te nit ñi parce que xam nga bu tojee mën a dem tolle. non jaay doole la jaay doole ñu bëggoon forcer nit ñi à ce que ñu génnee xaalis bi. parce que xaalis boobu tamit du lu ndaw 250 millions. faire ji. ah fu muy nee na bañ ko jàppee millions lañ fekk ci moom. ak ay scooter yu ñu naan wax nii. bu doon may moo gars yi bu ñu xëyoon gis nga musiba musiba la tudd semer le bordel moom la tudd comme dañu semer le bordel ci moom na dem non seulement jëlee otoom mais oto député ba laay jëkk xam fi mu gaare buntu këram mu ñu xëpp ci essence taal ko soog a dem fële. nañ gis nañ ko def. waaw mënate la ñëw sa kanamu jabar ne sa jabar dégage xajal ñu. Ah, dugg ci biir néeg bi saaga sa jabar jël téléphone sa jabar jël sa ñaari téléphone jël sa trois cent mille. Ah. te yow député bi lay añ añee xam nañu doomam a sàcc. xaayu sa war ma de mooy loolu nag. xaayu sa war ma de alaaji mën amul benn policier bu yoon may nga jëfandikoo nit ñi jëfandikoo ci kaw waa ji amul te histoire bi na xanaa waaj ji soo soo ñëw tas bi ñe yi gars yi yëgoon nañu ko xam nañu dëgg la xam nañu député bi day dof doflu te boppam buur bu subaa naa tudd turu député bi. ah, ah moom. ba xam moo ñu moom wala de. moom doo ko fi tuddee moom alaaji. dëkk bi bàyyi leen boo nekkee soi-disant as député wala as. non non dañ ko dañ ko yemaleel ñëpp dañu ne tous amul tudd tur di collaborer ak way takk der yi saa boo amee kenn koo jàppanteel benn yoon pousse gendarme yi wala police yi ñu ñëw kañang kañangee ko taxañ taxañee ko yóbbu dina mos indi benn révolte boo xam ni nañ di doxal dëgg justice est là pour tout le monde procédure sax dafa war a mat. bu dee wàllu médiation nag tooñee nga porté ko plainte. Ah. nga loo doon autorité autorité alaaji. waaw personne au-dessus de la loi. Mm. loolu la gars yi di faral di wax de. Ah. loo doon kilifa kilifa président de la république ci boppam alaaji. Ah. su ñu xaawee suturaam ak yooyu dañ naan article quatre-vingt dal na sa kaw kaw ndax loolu it lu wala voilà lu amoo indi mhm. lu itub am doole am doole am amul benn loi bu ko autorisé ne ko ku la neexul jàppal yóbbu dëgg loolu dëgg amul fenn ma waxuntuma la nag yow ñu ne yow da bokk ci ñi nga xam ne yaay toogal askan wi ci pénc ndaw réew ma ci assemblée nationale ah. dégg nga loolu dëgg yàlla ah en tout cas de yooyu day mën na mën na mën na indi coow de parce que am na ñoo xam ne moom boo leen naree yóbbee noonu alaaji dañuy dee yow boo nekkee dañuy dee non dañuy dee mais duñ dem duñ dem ils préfèrent ñu dóor leen ba lu fekkal ñu dee ca sasas waaye duñ dee waa ji il s'est laissé faire déedéet alaaji li ñu xamoon bu jëkk li ci yow du ci moom waaye lu la bett aussi mën la de liy dëgg mantulaay liy dëgg mantulaay mooy way takk der yi mën nga mën mën nga jàpp nit ku dëng ku juum ma ñëw def intervention ñaan nga bàyyi ko waaye kantaa utiliser way takk der mu ñëw tooxal nit humilié ne sans enquête. bu ñu enquête. amul audition amul dara. Hmm. parce que yow député nga rek sa tànk diis na. mais yaay kan hmm. laata ngay nekk député sa doom di sàcc ana député denc deux te député bi <laughs> député il habitué des faits c' est pas la première fois ñu sàcc bi këram hmm. deux cent cinquante millions. am na yeneen itam yu ñu ko jàppaatoon ci xaalis ak yeneen ak yeneen. gis nga il habitué des ah. ana député denc deux cent cinquante millions ci biir këram ba ay di ko sàcc il a ah, bien fait c'est pas la première fois ñu tuddal ko somp toll nii de. góor la jigéen. góor. ah bon. jàpp nañu ko sax ci xaalis ci bi mel nii. mu ñëw devise bu ëpp boo xam dafa énorme il a bien fait. foog ñëw yaa nekk ci dëkk bi moom nit alaaj nag yaa ngi xuus rek. ah noppi naa sax. noppi mais xam ne moomul nit ña. Ah. dëkk dëkk bii ñu nekk. wallahi république la. waa ji daal def ne. kenn doon na ko waa ji daal def ne daal APR la bokk. kenn doon na ko yow yaa ngi xool kenn moom ko non non non boobu jigéen la. boo ma waxee sama wax la li muy jaay. ay waay di baana baana la tëjal tëjal tëjal yàlla yàlla dolli jàmm ci réew yàlla nu yàlla suturaal yàlla nu yàlla jàppale yàlla nu yàlla aar mais est-ce que alaaj lii duñ ci dellu si suuf. ba njëkk ah kay. ah, ah tës bi moom dama jëli sa oto de copain. nit day am fulla de góor day nekk góor. nañ ci jéem a dellu si waat jëli sa oto. waaw ah, nañ ci dellu si waat suuf. ala daa sax ci xol yàlla nu yàlla suturaal rek yàlla nu yàlla jàppale. ana député denc 250 millions fu mu ko jëlee. salaire am da koo man koor gi nga xam ne dugg nañ ci yàlla dugg ci la daal jeexal tam la daal lépp luñ ci jaamu yàlla da nga wóor moytul mar yàlla yàlla yàlla nangu yàlla yàlla suturaal jàppale ay sëñ bi sallallahu alayhi wasallam amiin yàlla musul ci xuloo yàlla musul ci tàng la sama yaay di wax tàng diine yàlla yàlla musul ci tàng diine yàlla yàlla dimbali nga xamante ne nii boo ni un yàlla ñu yàlla dimbali ñi nga xam ne dañoo mën jël xeexu jàmbur yanu ko di daw ak moom ci dëkkandoo boo xam ne wala dendandoo xam ne da ngay dend moom te coow li ji moom te mën a laa ko bañ à tout moment laa dóor à tout moment incha suñu frère bi nag Baba Camara sama benn frère alaaji Baba Camara tey la mm. bàyyam am at ginnaaw nag euh, ba mu génnee àdduna ak suñu papa jooju yàlla na ko yàlla xare ci àjjuna yi gën a kawe mm-hmm. di seedi wujur sallallahu alayhi wa sallam yàlla Simeer Diop kon mbokk yi moo nekkoon ci xarale gi mantulaay ci bundooy laay mataara ngi ne leen nag euh, mm-hmm. yéen a xuloo jàmbur xeexu jàmbur miin maa tamit alaaji Mansour Diop ana kan la dendal sa côté dëkk borom maam barrière or ba ca Médine bànni Hachim bànni xuré sëriñ Ahmed Aïdara Karara monsieur le maire de la ville de Guédiawaye ngi di leen jox kon dig daje